daara yi maam jaara ji nekkee ci poroxaan seen vacances jeex ñu war a delluwaat ca daara ja wéyal seenub njàng ñu dajale leen fi nga xam ne moom moo di ci daarul minan ci kër sëriñ bi ngir ñu fas yéene dellu ca poroxaan bis bi nag di boo xam ne at mu jot bernde yi nga xam ne moom la ñuy waajal maam jaare yi di ndigal loo xam ne sëriñ Moustapha Bassirou Mbacke moom ma ko joxoon sëriñ Cheikh Touré nekkoon xalifa sëriñ Abdoul Karim ture mu daan toggal maam jaare yi saa ñu waree dellu ca daara ja